Cheikh Yade la di euh, PDG euh, Bamba Génie Civil di entreprise de BTP bi évoluer euh, ci Thiès ak Dakar. te dañu jëloon journée 20 avril bi mu nekkoon une journée de rencontre nekk une journée de B2B pour dajale ay acteurs communauté boo xam ne dañ koy dañ dañ dañ ko boole mu nekk ay enseignants ay entrepreneurs ay élèves étudiants. ay porteurs de projet ñu ànd ci pour waxtaan euh, pour lu doxal secteur entrepreneuriat Sénégal moo ñu dajale fi tey. xam nga actuellement dafa am benn appel boo xam ne le nouveau président de la République élu monsieur Bassirou Diomaye Faye euh, dafa def appel ci déclaration wu 3 avril mu ne dafa taxaw pour jàppale jeunesse bi jàppale secteur privé bi relever aussi le niveau du du du secteur informel. lu mel na noonu soo ko bëggee def il faut nga am ay cadre yu mel nii yoo xam ne ñoo xam ne déjà am nañ ci xarañte am nañ ci vécu am nañ ci expérience dajaloo boolewaat arme bi pour jéem a jàppale président bi nga xam ne moom la ñuy soog a élire ci programme bu mu am pour yóbbu Sénégal ci kanam. je pense que ne formation manqué wul manqué wul jeunes yi jeunes yi yaakaar naa école de formation yi bëri nañ universitaires yi ñoo ngi ciy liggéey lu bëri école privée yi ci liggée lu bëri. tey yaakaar nañu problème bi ñu gën a am mooy adéquation formation insertion ndax jeunes yi li ñu leen di former xale yi soxla nañ ko pour mën a am après emploi tey je pense que ne ñun ci loolu la ñuy dox pour xool vecteurs yi nga xam ne moom la ñu war a utiliser pour jéem a fexe formation yi nga xam ne moom la ñuy def ci école yi ñu xool nu ñu ko mënee re recadrer ko xoolaat ko bu baax ba nga ba nga xam ne euh, ci plan ci panel yu mel nii am na ay cadre yu bëri yu fi nekk ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci loolu am expérience sur le sur le terrain professionnel ñu boole ñaari xalaat yooyu pour ñu mën a créer loo xam ne wax dëgg yàlla bu xale yi pare ci formation dañu mën a évoluer directement dans le cadre du euh, professionnalisme. Mate Mbengue madame Guèye nekk formatrice en entrepreneuriat au département de Mbacké centre départemental de formation professionnelle de Mbacké ñëwoon fii tey fekke si daje bi fii ci euh, RS. li ñu war a déplacé wu fii fekk suñu naataango bi Cheikh mooy dañuy fexe xool nan lañuy waxtaani ñu ci suñu biir en tant qu'entrepreneur professionnel formateur bépp nit koo xam ne am nga loo mën a indi pour ñu soqali si ni ma ko mën a waxee développer le secteur de l'entrepreneuriat national moo ngi dajale fii tey ngir ay xalaat génn fenn fu nekk bu ñu mën a développer suñu réseau yi entrepreneur sénégalais bu nekk war see mën a gis boppam. attentes yi nekkul lenn lu dul bépp sénégalais. bu jóg taxaw dajale ay moyen moo xam moyen propre la moo xam dafa am financement quelque part góorgóorlu ba taxawal entreprise am ñu gunge ko ba mu gis boppam ci entreprise boobu waaye képp koo xam ne yaa ngi yëngu am li ñuy wax ay activités génératrices de revenu maanaam yaa ngi yëngu si leen waaye entreprise comme une organisation amagoo ko it ñu xool yan moyen la RS di taxaw ba gunge la ba fa nga bëgg a yegg nga fa gis ci sa bopp bu baax a baax moo xam domaine boo mën a yëngu.